kat yi nekk ca jamo gen Sicap mbaaw yem nañu ci seeraay xont jur gi alors que tabaski bi ay semaine moo ci des ñoom sax yaakaar nañ ne marché bi dina am xar bu doy. waa parce que aliment de bétail bi daa cher te def naa état Sénégal mu ngi def politique boobu pour ñëpp am ay xar parce que président joxe na ay financement premier ministre aussi wax na financement yi nag génn. balaa balaa tëbës bi di des un sàmmkat yi nekk ca foraay bu caaro yi ñoom leneen moo leen préoccupé moo di ñu am suuf soo xamante ne fa la ñu mun a daane seeni doole ndax fu ñu nekk ni domaine militaire la. militaire yi ñoo nu fi indi ñoo nu abal fii sunu sañan nag Macky sàll dina nu jàppale li nu jox nu terrain boo xam ne fa la ñuy nekk di yëngatu. téeméeri seen. ñu ngi fiy liggéey ñu fiy liggéey ñëpp nag seen papa fi nekkal. leneen lu jëm ci wàllu njaayum xar nguur gi daal na élargir ay point de vente mu ànd ak ay normes requises ngir wàccaay tabaski bi. c'est l'État qui gère toutes les dispositions nécessaires en tout cas à la réussite de ce point de vente c'est-à-dire euh, tout ce qui va. de l'éclairage, de l'aliment subventionné, euh, de la disponibilité de l'eau de la sécurité c'est tout un dispositif. sàmmkat yi nag ñu ngi tàllal nguur gi mu gën a baral loo xam lu jëm ci wàllu kaarange jur gi ak valoriser seeni secteur